<laughs> en fait lan moo ma jàppalee xam naa dina leen jaaxal trop damaa commencé woon nelaw de enfin damaa tëddoon damaa demoon ba tëdd après ma ñu envoyé ma benn benn vidéo benn vidéo boo xam ne dama ko xool mënuma woon empêcher pour ma bañ cee wax de toute façon your face tell euh, temps yi yëpp ci même personne bi la ñuy wax te franchement il commence à saouler moom mooy. Euh, Babacar Ngom je sais pas pour vous mais pour man j'ai l'impression que ni c'est pas du la première fois que muy def ay injustice muy teg ay actes yoo xam ne c'est injuste c'est juste que ni on va dire que ni heureusement qu'il y a eu des gens qui sont courageux qui sont sortis pour di ci wax alors je disais que ni c'était pas du tout la première fois en fait c'est pas je pense que c'est pas la première fois que Babacar Ngom di def lu ko neex c'est juste que ni dafa am nit yoo xam ne ils ont été courageux ñu génn di wax sànq damaa gis vidéo Aby Ndour bi et franchement en tant que femme ça m'a beaucoup touchée en tant que aussi même si je suis pas une mère de famille je peux à peu près comprendre ce que cela fait nga bëgg nekk ci benn activité te boole si nit mën la ko xañ à chaque fois ce que je dis c'est que yàlla baax na yi may gis ci commentaire yi dafa may metti te tamit dafa may énervé xam nga la moo tax parce que mënuñu dund si yàlla baax na yàlla na la yàlla jàppale. je le redirai pas assez kenn su amee problème su fekkoon ne ñun ñëpp dañoo jugandoo si problème boobu noonu billaahi ñu ci bëri dinañ régler si tous les faibles se réunissent. je dis pas que faible au sens bi ngeen koy déggee mais plutôt genre ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci classe sociale bi parce que xam nañ ne bu baax ne ñoom ñoo ëpp su fekkee ne ñun ñëpp on est réunis je pense que nous on serait plus fort que minorité bi nga xam ne non seulement pratique pratiquent du harcèlement sexuel comme par exemple Pierre Goudiaby Atepa wala bokk corruption ak prise illégale d'intérêt comme Babacar Ngom concernant Pierre Goudiaby pas su ñëwee ci télé di wane classe di wane respect Le pire, c'est que ni la plupart de ces gens-là sont des hypocrites. C'est un milieu qui est hyper vicieux. Très, très, très vicieux. De ça est soudain qu'en fait, tu t'en rends Je me demande, pas bu toll ni moom nan la mën a xoolee jànq di ko dig ay appartement di ko dig xaalis juste pour mu tëdd ak moom mu bañ mu bëgg xëpp Euh, na lañ koy waxee sax lekkoo si ndab li bëgg cee xëpp suuf le pire c'est que ni je me suis une question comment ñun ñun nan la ñu war a mën a développer sa que ni on se tout le temps des bâtons dans les roues nan et je pense que ni ñi nga xam ne surement dina am ñoo xam ne tamit dinañ nekkaat si côté Babacar Ngom wala boog Pierre Goudiaby bu Atepa des personnes sans scrupule ah, des personnes dinañ génn di wax ni genre waaw de toute façon mënoon na woo Youssou Ndour wala boog famille ils plutôt sa famille elle est kon mënoon na ko lijjanti yaakaar naa ne ñun ñëpp xam nañu même su fekkee ne xamuñu plus ou moins parcours Aby Ndour mais on sait tous que ni c'est une personne qui est hyper brave te sérieusement man benn instant je me posais des questions savoir su fekkee ne juboo na woon ak Youssou Ndour am déet parce que ñun ñëpp xam naa ne en tout cas la majeure partie su fekkoon ne am nañ position bi nga xam ne moom la am mënoon na utiliser ay influence am te dara du jip mais. encore une fois te tamit courageuse qu'elle dafa ñëwaat ci population bi pour prendre leen à témoin léegi man ce que je demande c'est que ni nit koo xam ne dafa am courage ba étaler li nga xam ne loolu moom moo ko metti ci réseau sociaux yi ñun ce qu'on est prêt à faire c'est ça en fait lan la ñu pare pour def pour genre nit yooyu noonu c'est très très très important wala boog dañuy toog rek saa su nekk di leen ñaanal di toog di naan saay su nekk euh, borom doole moom moo mën borom dëgg wala boog on va une bonne fois pour toutes d'agir et en tant que jeune il faut vraiment que ni yenn yenn réaction yi wala boog yenn action yi nga xam ne yenn personne dañ koy teg parce que dañoo jàpp ne ñoom ñoo moom Sénégal wala book ñoom ñoo gën ci Sénégal il est temps que ni ñu arrêté ko en tout cas c'est ce que je pense je suis tellement écœurée kër ni awma sax inspiration en fait je suis très très très écœurée et très déçue ci Sénégal empleur bi nga xam ne moom la nekk di jël ci ay affaires yu bon ay imitation yu bon rek la ñuy yor yu bon rek yu bon rek yor naa xaalis forcément war naa mën a def loo xam ne moom mu bon léegi su fekkee ni yow da nga bëgg juste da nga bëgg étendre sa commerce da nga war a lor beneen nit à quel moment ñun lañ ñu respecté je parle pas seulement du Sénégal de mais en tant que nit ku ñuul parce que c'est important de se poser des questions parce que nag mën nañu waxal nag dëkk tubaab bi lu ne mais am na yenn yoo xam ne duñ ci dugg wala boog dépassé nañ ko comme par exemple ay promotion canapé am na yu bëri yoo xam ne ñoom dépassé nañ ko ñun sooy xool dafay mel ni comme si on vit en 1980 1985 loo xam ne ñoom génn nañ ci ñun ci loolu noonu lañ nekk di dugg ce qui est grave moom mooy. et c'est vrai ci administration sénégalaise yi bien vrai que am na si ñoo xam ne réglé nañu mais la plupart du temps di nga fa fekk ñoo xam ne soo fa nekkee soit dañ lay laajte pour nga tëdd ak ñoom soit dañ lay laajte xaalis wala bokk duñ la defaral loo xam ne loolu nga bëgg alors que ni loolu seen liggéey la dañ fa toog pour argent wu contribuable di leen fay. dañ fa toog ñu leen di fay suñu impôt mais à la dafay mel ni sax comme si ñun dañ leen di saraxu pour am li nga xam ne loolu ñoom loolu moom moo leen war mu nekk seen liggéey te ñun ñu am ci droit rek loo xam ne danga may jox rek man ma dem sama yoon yow nga bëgg ma cee jàppee mbaam wala boog di mu yuuxu wala su ma ñëwee sax doo ma faale soo nekkee jigéen nag mu gën a métti ce qui que ni en fait en tant que africain parce que man damay ñëw à chaque fois ci figure boobu noonu on a tellement trahi notre africanité à tel point que ni xàmmeetuñu sax place yi nga xam ne moom la jigéen war a tenir mais lu ñu war a xam moom mooy la renaissance africaine la développement de l'Afrique ne se passera pas sans la femme africaine c'est un fait en fait loolu noonu c'est un fait avant ñuy jël di naan ay jigéen moom moo war a nekk si ginnaaw wala boog di ñu tuutal saay su nekk du ñu imposer loo xam ne leer na leen ni parce que lan da ko bëgg néewal doole machisme dafa bëri Sénégal ak dof-dof la surtout nag de ci ñoo xam ne dañoo am tuuti grade ñoo xam ne gëmewuñ ko affaire dof yooyu dafa bëri Sénégal en fait léegi de ce fait jigéen ñi ñu si bëri dañuy jaaree du ñu gëm seen bopp wala jàpp nañ ne service bépp bi nga xam ne war nañ ko def rek forcément dafa war a jaar par soit nga tëdd ak nit ki wala bokk. mu lay def ay affaire ñàkk fay ay atteinte sexuelle wala bokk ay harcèlement sexuel je salue son courage et aussi son bravo parce que c'est pas du tout évident ngay génn di wax ci loolu am na si ñu bëri ñoo xam ne bu nekkoon ñoom duñ ci wax léegi man ce que je dis tout le temps c'est que ni on peut la soutenir ainsi que toutes les personnes qui subissent l'injustice et comment am na procès ñi nga xam ne nekk nañu Sénégal ñu def ko rek te yàlla tax te xam ne instant bi nii su fekkee ne amuñu union bu ñu sentir que ni dëwën dinañu mën a xoolal may naan dëwën sax génération bii di ñëw dina mën a def loo xam ne dina évoluer su fekkee ne ñun dinañ def comme pas yooyu noonu lu nekk di def pas yu bon yooyu su fekkee ne ñun on ne incapable de dépasser stade bii ni ñu toll qu'on soit uni unis nous toujours plus forts par kon su fekkee ne ku nekk dafay jaay égoïste toog ci sa côté doo avancer te itamit doo dem fenn <sighs> alors Madina Dieng xam naa li nga bëgg a wax sauf que ni su fekkee ni version rek la ñu xaar waaw pour ñu duggaat sax ci benn wax boo xam ne c'est très très important et j'espère vraiment que ni je vais allier les deux mu nekk Atepa mu nekk Babacar Ngom Babacar Ngom ah, par rapport ak entreprise bi nga xam ne moom la yor par rapport ak sédiment ampleur bu mu nekk di jël par rapport ak li nga xam ne loolu la ñu nekk di wax amul pôle de communication boo xam ne depuis bu ñu koy dégg ci ay scandale buñ ko déggee ci scandale foncier wu Ndingler bi amul pôle de communication boo xam ne génn na wax ci amul ay avocats yoo xam ne génn na ci wax loolu xam nga la lay signifier soit il le peuple soit il n'a rien parce que qui ne dit rien consent te loolu noonu c'est un fait su fekkee ne nekkoo ci dëgg doo tontu parce que bu boobaa doo xam looy wax du ay non non bàyyi ko du ma du ma du ma ko tontu parce que awma lu ma ko wax du comme si en fait clash la entre ñaari chanteur de du comme Wally Seck dafa clashé Youssou Ndour de nekkuñu ci loolu de fii dañ la traité de sàcc ak guerre ak corruption soo génnul wax kan mooy génn wax su fekkee ne yow sa jëm bopp yow yaay woote formalité alors que tu es dans l'informel amoo sax tu n'es même pas foutu d'avoir un pole de communication si sa entreprise jox la ay milliards te pourtant munoo sax génn wax non non am na ñenn ñoo xam ne kenn du leen jëlal par je suis désolée quant à Atepa nañu déglu ba xam lu muy wax sauf que ne nag moom dëgg la on peut pas faire des conclusions trop active sauf que nag nopp buy dégg fen ak buy dégg dëgg dafa neex a xam. tant que la jeunesse ne se décidera pas à se soulever. Ah, continueront toujours à agir comme bon leur semble se lever et dire assez basta dafa doy c'est l'unique solution je suis parfaitement d'accord avec toi elle est très réservée quel intérêt pour inventer tout ça exactement merci Amadou Wedra Gogo koo xam ne doo ko dégg si dara te boole si tamit jëlul influence gis nañ fi ñu bëri waaye gis nañ fi ñu bëri ñoo xam ne ci seeni influence comme par exemple mag wala rakk wala papa si la ñuy doxee mais moom gisuñu ko ku nekk nag moom li nga gis rek loolu ngay jugé après aussi on peut dire que non c'est des conclusions trop ki da koy jugé démb moo tax ñuy wax tey boo bëggee àtte démb tamit boo bëggee àtte tey kay da ngay indi démb loolu moom mooy dëgg su fekkoon ne yeneen nit ñi la bu boobaa di nga naan ah nañu xaar ay version nañu xaar version su kële affaire yooyu noonu mais koo xam ne déggoo ko sax muy utiliser pouvoir bi nga xam ne moom la magam am te ñu xam ne bu baax ne magam il est très très influent kooku su waxee war nga ko dégg te nopp buy dégg dëgg ak buy dégg fen ñun ñëpp xam nañ ko damay bañ waaw je suis d'accord avec toi ça aussi ça se comprend ça aussi ça comprend Madiba Dieng d'accord avec toi mais euh, par rapport ak kii bi na lañ koy waxee sax par rapport ak affaire u Ndingler bi parce que man affaire bi ne daf ma gën a ubbil xel daf ma gën a ubbi bopp bien vrai que yéen a ngi naan genre dégguñu beneen version bi mais man ce que je dis c'est que ni on a en face de nous une personne sans scrupule koo xam ne amul benn yërmande c'est une personne qui est sans pitié koo xam ne rusul dépossédé ay pauvres rusul dépossédé jigéen boo xam ne elle les courageuse dafay battre juste pour lu mu dundalee famille rusul def lu bon pour mën a jug dafa am ñoo xam ne en fait ils sont capables dëgg la jàll juste pour atteindre seeni objectif dafa am nit ñoo xam ne noonu lañu may ils sont capables de trahir toute une nation ils sont capables de financer même des dictateurs pour arriver à leur fin ñun nag on a en face de nous une personne qui est sans scrupule léegi par rapport ak euh, signature yi on est à 5000 il faut qu'on atteigne les 10 000 signatures pour qu'on puisse envoyer la lettre au ministre ak moom ci nga xam ne ak waa Silima si boppam sauf que ni su fekkee ni loolu noonu euh, marché wu tout cela dépend de vous en fait et de moi bien sûr mais day nekk interaction entre ñun ak yéen entre man ak yéen pluto su fekkee ne loolu noon marché wul man je propose mais de toute façon étudiants yi fi nekk ñoom sooy xew manifestation fii la ñuy nekk di naan. Euh, enfin du ñu wax sax mais du ñu ñëw parce que sûrement peut-être dañuy ragal ñu xëcc seen titre de séjour alors que n'a rien à voir tu vois encore une fois su fekkee ne xamoo sa droit mooy loolu mais pourquoi pas ñu mettre ko en TT KFC parce que KFC de toute façon ci Twitter soo ko mettre en TT dafay génn directement def communiqué am na ñoo xam ne nag ñu ngi ma doon envoyé message di ma naan comme quoi opinion internationale waruñu ko jël à témoin bien sûr que war nañ ko jël à témoin fierté boobu noonu moom mooy opinion internationale suñ ko jëlu à témoin kañ la ñu jël à kan su fekkee ne ñun suñu dëkk mun nañu lijjanti li nga xam ne loolu moom moo fa nekk alors que moom franchise bi c'est international la moo tax on va pas prendre l'opinion internationale à témoin bien sûr qu'on va le prendre à témoin sinon dañuy bàyyiwaat noonu au calme mu déposé de ñële créer benn chômage rural boo xam ne doo xam fan lay yegg lañ waxante dëgg. Ah. Oui, Massa, c'est le capitalisme. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est le capitalisme. C'est vrai. une bande de délinquants fortunés qui font la pluie et le beau à Dakar alors am na kenn ku ne Aby Ndour moomul terrain bi mais même su fekkee ni moomul terrain bi je vous signale que ni on parle de harcèlement sexuel là amul amul amul défense boo xam ne da ko mën a jëlal góor boo xam ne da ngay naan naa la jëndal li naa la jëndal lii pour nga nekk ak man. non nañu waxante dëgg yéen tamit arrêté leen am na yenn nit yoo xam ne kenn du leen jël défense nañu waxante dëgg yow on te parle de sexuel nga ñu naan ay terrain bi moomu ko su ko moomul nag su ko moomul te du jënd ak jaay la ñu sekk wala boog da nga soxla benn affaire bugguma pour nga jox ma ko non mais sérieusement yéen xalaat li ngeen di wax ah sérieusement nag des fois nag wax dëgg yàlla. day neex trop ñuy mun di discuter affaire yooyu noonu mais su fekkee ne yow yow da nga koy jëlee rek ci sa bopp da nga koy jëlee ci sa bopp goo nekk di la topp pour lan parce que dafa bëgg benn affaire si yow on te parle de sexe là nga may wax waxu ay terrain du moom ko même su fekkee nag moomul dafa am droit man ko de respect parce que moomul terrain bi dafa am droit manqué ko de respect ñun foofu noonu la ñuy waxee par rapport ak acte yi nga xam ne da ko posé léegi nag sur le plan juridique wala boog sur le plan légal moom na ko moomu ko loolu noonu beneen problème la. loolu beneen problème lu ñu lay wax moom mooy proposition yu malsain yi nga xam ne yu malsain yoo xam ne nit da koy def mu nekk góor wala boog mu nekk jigéen envers une autre personne loolu lañ la nekk di wax instant bi nii et ça c'est quelque chose qui te tamit c'est puni par la ne la jeunesse on a les les chefs que l'on mérite. mais si on avait envie de changer ba mu bëggee ligne d'or si on a envie de changer nag si on a envie de changer si on a envie de faire bouger les choses yow qu'est-ce que tu proposes dañoo war a toog rek di seetaan parce que on a les dirigeants qu'on mérite man j'ai pas les dirigeants que je mérite parce que man j'aurais préféré que ni mu am bonne gouvernance boo xam ne Macky Sall loolu la ñu diggoon mu am impunité dans tous les plans enfin punité plutôt punition les plans gouvernance sobre et vertueuse loolu la ñuy wax ba ñu votel ko donc c'est pas quelque chose que l'on mérite en quelque sorte parce que bu ñu koy votel 2012 soo xoolee plan d'action bu mu tegoon différent wul trop trop trop ak bosu ko lu mu doon wax waxu patriotisme la doon wax su fekkee ne da ngeen di xool na lañ koy waxee sax Macky Sall lu mu nekk di wax c'est juste que ni dafa toog changer stratégie mais lu mu doon wax ay waxu patriotisme la doon wax xool leen bu baax discours 2012 ami Vous serez étonné. Euh, la justice doit faire son travail, c'est tout. Madame Facebook ne peut rien faire. Bien sûr que Facebook peut su fekkoon ni Facebook na peut rien faire kon bu boobaa duñ toog fii nii di wax ak yow su fekkoon ni Facebook ne peut rien faire kon bu boobaa du ñu jot ci publication yi nga xam ne moom moo nekk euh, moom moo nekk conflit bi nga xam ne dafa opposé Babacar Ngom Vampire ak Ndénge Leer wala boog Babacar Ngom ak euh, Aby Ndour wala boog Atepa ak Aby kon nag Facebook peut faire quelque chose de te tamit yaakaar naa loolu moo tax mu am interaction entre man ak yow. Ah, na fi mel ni kon nga ñëw toog suñu place c'est tellement simple. Alors, Elage Habib Kachem, accepter la réalité, chacun a son temps et c'est le temps de son co en espoir pour le peuple. Ouais, espérons que en 2024, nous n'avons pas de carte électeur, nous n'avons pas de voter son co puisque nous nekk di wax Mbay Dogo Mbay Dogo Mbay il faut la soutenir merci Nafi Mendy li ma la wax dafa leer alors cher Tidiane Seck comment tu vas bien. waaw voilà c'était waaw Baba Diop heureusement qu'il y a Facebook merci heureusement qu'il y Facebook c'était mon coup de cœur pour tey ñi nga xam ne signé guñu kii bi na lañ koy wax sa pétition bi. dinañ ko defaat lien pour que ngeen mun ko signer le sous-développement est mental alors changez votre nation avec un programme social votre Ba ba Gueye Lindor foo dëkk yow xanaa ko Sénégal changez votre nation nga wax avec un programme social éducatif économique pour sortir de votre sous-développement sànq ba tey yaa ngi wax votre de te Baba Baba Bamba Gueye plutôt Bamba Gueye kii la de sénégalais la de. wala yow dëkkatoo Sénégal ñun tamit dëkkatuñu Sénégal mais pourtant Sénégal ci ci suñu xol la nekk de moo tax ñu ciy sonn nii munoon nañoo bàyyi ku nekk ak na lañ koy waxee sax ak misère bi nga nekkee ku nekk ak injustice bi nga nekkee sauf que ni c'est parce que ni da nga génn Sénégal rek que forcément sa lépp day génn Sénégal dëkk bi nga juddoo rek war nga ci reconnaissant n'est-ce pas xool Yacine Sène merci billaay elle est pas obligée de regarder Nafi Mendy sonn na trop. Khadim Mbaye de pour faire avancer le pays et prétendre à un développement il faut d'abord que la jeunesse sénégalaise soit consciente de son lendemain mais la jeunesse sénégalaise est malsaine et médiocre après aussi malaaka mawti ça dépend de c'est pas toute la jeunesse qui est malsaine et médiocre bien vrai que ni bëgg nañu ay futilité et tout mais il faut pas sous-estimer de am na ci ñu ci bëgg lu baax de du ñëpp de j'avoue que ni nag majorité bi la plupart du temps moom mooy loolu comédie fecc reetaan comme ñu koy waxee kenn du leen yàqal seen àdduna je constate Albouri Seck je constate que au Sénégal on n'a pas le contrôle de nos terrains ils sont L'État doit prendre des mesures que les étrangers. Alors, attends. L'État doit prendre des mesures que les étrangers ne peuvent pas acheter des terres, sauf s'ils sont mariés avec un homme sénégal ou une femme sénégalaise. Ok. Euh, ma xool Alboury Seck loolu noonu waxoon naa si ce qui se passe c'est que ni 5 pour cent des terres rek ñoom ñoo immatriculé c'est-à-dire qui appartiennent aux particuliers personne physique wala personne morale 95 pour cent yëpp état bi la appartenir. parce que dañoo defoon benn réforme boo xam ne c'était en 1965 et du coup droit coutumier dañ ko supprimer pour remplacer ko par le droit des colons là le droit français léegi nag de ce fait 95 pour cent yi nga xam ne ñi immatriculé loon ñëpp dañ ko relever ci domaine national léegi état moom moo ko moom te état en fait vu les enjeux da ci profiter puisque à chaque fois dafay. privilégier plus investisseurs yi nga xam ne ñoom ñoo les plus nantais wala bokk les étrangers au prof au détriment plutôt des paysans yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi loolu la état Sénégal di def ba tey ñu ngi xaar nag réforme foncière bi parce que lu mu nekk di def tegu ko ci dëgg tegu ko ci yoon loolu lañu doon wax sànq par rapport ak régime foncier bi nga xam ne moom moo nekk Sénégal Régime immatriculation, c'est juste 5%. Régime de domaine national, c'est 95%. Dans un État qui compte 16 millions de Sénégalais. C'est ça qui est le scandale. Et pourtant, d'une ko wax. moom moy mën nañu xey un jour rek, un beau jour, comme par exemple, génne nit alors que ni foofu la yàgg dëkk. Da ko doonu ci ay mamati mamam. Parce que dañ amul immatriculation ñu xey rek génné ko parce que léegi fo nga am droit réel titre foncier. Euh, soyez sec. Merci. Sans que notre seul espoir. Euh, Tiam Ngagne, ouais, je suis d'accord avec toi, sauf que en fait, le problème c'est pas la personne de Sonko, mais plutôt ses Man loolu laa mënul d'accord ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñenn ci ñi nga xam ne parce que du ñëpp dañuy ànd ak Sonko. c'est pas la personne de Sonko qui compte, mais plutôt les idées qui sont derrière. buñ ko jël nag idéaliser ko de telle sort que ne su defee benn jour benn erreur bu ndaw rek. ñu commencé di naan ay noonoo ñëpp noonu la ñu mel affaire yooyu noonu c'est juste un humain Diop Fodé non t'inquiète mu ne une opportunité Fadel Louaïdi une opportunité pour finir avec la pauvreté et ses dettes hey yow valise magique ay waay Fadel bi te nga ñoo bañ a delloo ci loo xam ne xamuñu ko yow su fekkoon ni loolu noonu am nga ko xa yaakaar naa doo toog fii di bind message de sa message bu gudd bi pour lan charlatan nga wala loo doon portefeuille magique ak valise magique kii neex na de Diouf jóge merci euh, jàmbaaru ba t'es pas obligé su la neexul tu passes ton chemin c'est grâce à Facebook qu'on est au courant des magouilles et les injustices dans le monde c'est ça en fait parce que des fois yenn médias yi duñ ci wax te du coup on est au courant de rien ça me rappelle juste euh, Léopold Sédar ak kii Mamadou Dia bi Mamadou Dia waroon faloo Léopold Sédar Senghor utiliser rajo yëpp bàyyi ko ci biir ba pare gëmloo ñëpp ne en fait da ko bëggoon a coup d'état c'est la même chose alors que ni tey loolu bëggoon def Sonko du jàll par rapport ak Macky parce que Facebook mu ngi fi réseaux sociaux yi mu ngi fi te l'information va à la minute près quoi. Omar Lam dëkkoo Sénégal léegi foo dëkk Babacar Fall très pertinent l'avenir c'est pour nos descendants il n'y a que les pervers qui cherchent amoralement à défendre ses parvenus je suis d'accord avec toi Babacar Fall sauf que li nag dans ce monde en fait il toujours de gens qui son méprisables dina am toujours ñoo xam ne ils seront prêts à vendre leurs âmes au diable juste pour satisfaire ñi nga xam ne nekkuñu ci dëgg loolu yàgg nañ ko fi gis avec ce fichier Sonko ne gagnera pas en 2024 Baba Diop ah c'est à travailler fii ak 2024 il y a quatre defar rek liggéey rek jeunesse bi aussi te jeunesse bu ñu am moom mooy lool de c'est deux pois deux mesures d'un côté y a des personnes qui essaient en fait dafa mel ni comme si ñi dañuy gas ñi di suul am na benn côté boo xam ne nit ñi bëgg nañu avancer am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di bëgg delloo ginnaaw. Mon pays va mal, un jour viendra, les pauvres seront dessus des ingrats. Ça les cher, merci. Sister, ah, Vito ak Tade du yow kese yow yaa ragal de ñi fa nekkul sax dañoo ragal ma sama masamalaak nag ñi nga xam ne ñoom ñu fa dëkk ñëpp a ragal instant bi Mor Ndiaye ça va c'est la première fois ñuy dëgg Aby Ndour muy wax nii su lépp dul dëgg tamit am na lu siy dëgg mais Diagne je suis parfaitement d'accord avec toi et franchement les gens de mauvaise fois vraiment am na si ñoo xam ne ils sont vraiment de mauvaise fois parce que koo xam ne comme ni ñu koy waxee rek soo bëggee àtte tey da ngay indi démb koo xam ne mosoo ko dégg si dara ba pare boole la si jéemul utiliser influence su turam affaire yoon noonu lépp doo ko dégg sax ci affaire ñàkk fay la te nga gis ko mu génn wax lu muy wax soo ko mënul défendre tu te en fait c'est simple. ku nekk nag moom mooy choisir lu muy gëm ak lu mu dul gëm soo leen ko gëm seen problème la c'est tout en fait c'est tout. waaw Mbaye Diagne Seck euh, Mamadou Samb nga ne Macky est le seul président qui a voté pour les accidents ambulants. vous faire une loi pour que vous n'ayez plus que deux fils. Chaque personne a sa pensée. Eh, excellent, bah, vous êtes nul. yow dañuy xas nag vous les Sénégalais vous êtes excellent vous êtes nul Mamadou Sambou euh, n'était pas nul vous n'auriez pas une élection sans verdict jusqu'où alors Mamadou Sambou ce qu'il faut savoir c'est que ni c'est pas une guerre entre africains d'accord xaw ma nag ban fan nga jóge ak tamit ban dëkk nga nekk mais euh, calme-toi rek. alors c'était mon coup de gueule pour tey maa ngi tëddi ba suba incha allah sachant que ni euh, dans tous les cas en fait dans la vie on peut pas du lépp daal la ñuy wax c'est tout ce que j'avais à dire te ku nekk nag moom tu libre de croire ou de pas croire ku nekk tu es libre jël sa téléphone wax li nga xam ne moom moo la ñor c'est la liberté d'expression ku nekk tu es libre que tu sois ci sa biir dëkk wala bokk nga nekk or ñi nga xam ne nag dañoo jàpp ne ñi euh, ñi nekk ci dëkk bi rek ñoom ñoo war a jug alors que ñu nekk ci dëkk bu juguñu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biti nekk di wax ils sont aussi légitimes su leen neexul bu leen ko seetaan c'est simple en fait su leen neexul bu leen seetaan parce que kenn forcé wu leen c'est aussi simple que voilà voilà ba suba incha allah continuer leen signer pétition bi à demi-signature on va poser des actes et des actions avec la jeunesse qui est consciente la jeunesse qui veut avancer avec les personnes qui veulent réellement avancer ñu fanaan jàmm